sunu koor ak sunu xeetu jaamu yàlla yëpp yu dul koor bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi xel rek ne ñu ngi ci fukki fan yi nga xam ne moo nekk ci digg bi ñu ngi ci mu fukki fanu njëgal saa yu nekk rek ñu bañ ci fàtte suñu bopp waaye it bañ ci fàtte waale ci waajur yi jiitu di leen sàkkul njëgal ndax liñ tase ci ñoom mooy di leen ñaanal di leen xel bon ñu bàyyi ci xel bu baax ndax kat fukki fan yi ñu nekk fukki fan yi njéggal la yàlla na yàlla jégal ñu ci jégal ñu way jégal ñu jiitu bi jaay muhammad sallallahu alayhi wa sallam tey ñu waxtaan tuuti rek ci baat buy lu ñuy wax baabu zina zina suñ ko waxee mooy njaaloo njaaloo mooy sëyeg góor boo xam ne takku la wala jigéen boo xam ne takku la nga gis ne loo xam ne lislaam daf ko bañ ba nga xam ne ay alxuraan wàcc na ci wax ci jox ci ay tëkku xadis ñëw leeral ci lu baree baree bari ngir rek bëgg nit ñu moytandiku ndax zina ndax la muy waral ci doomu aadama bi ndax gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa dafa mas a toog benn bis am ñaar ñu mas ñëw ñëw ci moom ku ñu nettali nag ku tudd Abu Hurayra moo ñu koy nettali ak Zeyd bun Xaalid radiallahu anhuma ñoom ñaar ñooy nettali xissa bi ñu ne yonte bi salaa sallam mas na toog am ñaar ñoo xamante ne ñaari góor yoo xam ne ñu ngi doon xuloo ñëw ci yonte bi salaa alayhi wa sallam xuloo xuloo bu tar bi ñëwee ci yonte bi salaa sallam ki ne ko yaa rasulallah ñun ko dañoo ñëw pour nga àttañ ci sa téereb yàlla bi ba dañu ñëw pour ci alquran keneen ki ñu ne ko def ne keneen ki ci des ne ko ne ko yaa rasulallah ñun dañu ñëw rek pour nga atteñu ci sa téere borom bi maanaam moom tamit bi mu waxee loolu nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ko ne ko waxal mu ne ko mankat sama doom bi dafa nekk dëkkandoo sama waa ji may xulool waaye bi mu nekk dëkkandoom mu sëy mu njaaloo ak jabaram bi mu njaaloog jabaram nag a ah, mu ne dañ koy dañ koy jam mu ne day jàpp dañuy jam sama doom ndax dafa njaaloo ak jabaram mën a déedéet bu mu ko jam dama bëgg ma jox leen téeméeri gàtt ak benn jaam pour ñu bàyyi ko bañ ko jam ah yonent bi sallallahu alayhi laaj keneen ki ci des ndax kat nee nañ laaj nañ boroom xam-xam yi ñu wax leen lii ne leen dañ koy jam wala dañ koy dañuy dóor doom ji téeméeri yar yonent bi sallallahu alayhi ne leen ne ko maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk mi subhanahu wa taala danaa leen atteyee ñaar ci téerab yàlla bi la di aqdiyanna baynakuma bi kitaabillahi taala mu ne amal amma xanamuka wa jaariyatuka fa radd alayka wa amma allazi ala ibnika fa jaldu miatin wa taxribu amin yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko yow mi indi say jur maanaam sa doom dafa njaaloo nga indi say jur nga indi sa jur ak sa jaam pour bëgg mu joxe ko pour ñu bañ koo dóor mun a dellool say jur dellool sa jaam mu ne ko ah mu ne ko sa doom danañ ko dóor téeméeri yar waaye yemul ci téeméeri yar dóor ko rek de waaye dañ koy dañ dañ koy dañ koy tumurankeel at waaw ñu ne nañ ko tëj at xam nga kuñ tëj at tumurankeel lañ at dóor la téeméeri yar ba pare tëj la at wala la dëkk bi at amoo droit dëkk dëggu fi xam nga loolu day daal xaw a diis mu ne ko ban sa doom loolu lañ koy at mu ne kii nga xam ne jabaram dafa njaaloo nag mu ne ko mu ne ko yow sa jabar dañ koy jam waaw dañ koy pendre ci gi di ko sànni xeer di ko jam ba mu ba xeer yi mooy nekk bàmmeelam wala ma loolu bon jigéen bu fekkee dafa am jëkkër ba pare njaaloo atteem mooy dañ koy jam kenn du ko dóor de dañ koy jam bu doon ko góor kee dafa am jabar ba pare dem njaaloo dañ koy jam kenn du ko dóor mais comme amagul woon jabar moo tax ñu koy dóor téeméeri yar. jam mooy rey. waaw jam mooy rey waaw raj mu ñu ne dañ koy jàpp takk ko ci garab di ko sànni ay xeer di ko sànni ay xeer ba mu dee xam nga déegu metti googu waaw loolu pour lan pour maanaam moytandiku loo rek nit ñi njaaloo ndax danger bi ci nekk moo tax mu firndeel ne bon jigéen boo xamante ne dafa am jëkkër ba pare dem di njaaloo dañ ko war a jam alquran wax ñu na ne azaniyatu wa zani fajlidu kullu wahidin minhuma mi'ata jaldatin yàlla nee na njaalookat bu góor xool yàlla ba muy tudd njaaloo jigéen la tàmbalee njaalookat bu jigéen ba muy tudd njaaloo jigéen la tàmbalee ba muy wax sàcc nag góor la tàmbale as saariqu wa saariqatu sàcc bu góor bi ak sàcc bu jigéen faqtahu aydiyahuma dagg leen seen loxo ñoom ñaar waaye ba mu ñëw ci njaaloo dafa ne assaaniyatu faj zaani fajlidu kullu waahidin minhumaa mi'ata jalda maanaam njaalookat bu jigéen bi ak njaalookat bu góor bi ku nekk dañ ko dóor téeméeri yar maanaam dafa bëgg wax ne njaaloo su yombee rek ci góor jigéen la jaare waaw jigéen moo ko a mën a gaaw facilité góor mën na ko bëgg mais léeg-léeg su jigéen si nangul du am mais jigéen moom pour mu uti ko amul yombul moo tax ba muy wax njaaloo mu tàmbalee ci jigéen bu dee wax sàccit mu tàmbalee ci góor ndax góor a ëpp fit ci sàcc ci jigéen bon nee na bon njaalookat bu góor ak njaalookat bu jigéen nañ leen dóor téeméer yar waaw waaye nag nee na buñ leen di dóor it wala taaxus kum bihima rahfatan fi dinillah buñ am ci ñoom ñewent maa am buñ am ci ñoom yërmande li yàlla wax daal nañ ko def waaw nañ leen duma diw dafa njaaloo mën a dóor leen ko bu kenn uti moom ab njawete wala ab yër ab ne def leen li yàlla a santaane ndax lu tax fa inna allaha taala arham bi ibaadihi yàlla la gën a yërëm ay jaamam waaye bu demee ba jaam bi jalgati mun a def leen lii xam na lu tax mu def loo ko loolu waaw bon te yàlla moo digale ne bon nañ nañ xadd nañu gëtën ku ñu gëtën ki nga xamante dafa njaaloo ci àdduna fii nañ ko gëtëm waaw ndax lu tax nee na bu ñu ko gëtalul fii ci àdduna maanaam dóor ko téeméeri yar yooyu fi àdduna nee na ah yadribu yawma alqiyama bi siyaatin min an naari alaxira danañ ko dóor ay liifi safara allahu akbar ah waaye itam fa fekk boobu mooy gën a metti buñ ko dóorul fii nee na alaxira ko dóor ay liifi safara yàlla nañ ci yàlla musal waaw mu ne suñ ko dee dóor nañ ko seede nañ ut ñu seede buñ ko bu leen tëj ti nekk di leen dóor de ne ay mbooloo ñëw tey par exemple buñ leen bu ñu amoon ñu ñu door dañ leen yóbbu esat na am na ñuy njaaloo ñu war a door ni ñu dem seetaani wala boog ñu médiatiser leen wane leen télé yi dina xool bu fay xale yi ci kër gi dañuy ragal ku gimmi gis lii lii la ñuy def kuy def duñ ko xalaat seen xel lu ci nekk xëy na classe ñoom la grand gi moom rëcc nañ waaw ñoom romb nañ fële waaye xale yi ndaw yi nga xamante ne nii dañuy gis ñi dóor ñi ndax dañ doon caaxaan ñooñu duñ ko mas a def ndax lu tax boobaa daf ñuy am la ñuy soriloo yàlla nee na bon nañ def loolu in kuntum mu'minin bu fekkee ne ñun gëm nañ yàlla buñ gëmul yàlla nag ñu def lañ bëgg jamono ji bon ñun lu ñu def liñ bëgg dóoru ñu fi kenn ci njaaloo waaw fekkee ne gëm nañ yàlla wal yawmil axir ñu gëm alaxira nañ def ñu loolu ñu yàlla sant daat wala yashhad azabuhuma taifatun min al muminin suñ leen di dumaa it yàlla nee nañ ut mbooloo ñu seete ko bu leen kenn tëj ci nekk di leen dóor nañ leen dóor ci kanam mbooloo ngir ñu mën a moytandiku njaaloo ngir ñi ko defagul woon xalaat ne man su ma defee lii moom ma ciy fekk gàcce gi duma ko mas a def xam nga ma la sax dóor mais bu doon jamono bii ku njaaloo rek ñu takk la ci tegal jaara la ci oto tegal la ci kaw jaay di romb comme président bi romb ñu ne diw laa wane la ci kii rek am kersa xoolal Sénégal li fi xew jamono ji waaw ñi ñuy médiatiser ñëpp di ci commentaire luñ def luñ leen luñu luñ leen di médiatiser affaire u te kat ñi ciy wax ñëpp kenn amu lu leen wóor te yow sax boo ci amoon loo wóor sax wax loo wuñ la diine nee na nga noppi soo amul ñeenti sa seede soo amul ñeenti mu ne soo ko waxee nañ la dóor juróom fukki yar quatre-vingts yar ndax amoo seede yow nag kenn ku nekk taxaw kenn nga gis ku taxaw fii di demande diwa ko def kii ne taxaw ne diw defu ko waaw kay wax diwa ko def gisu ko kooku moom ma ngay dugal boppam ndax lu tax diina waxoon na la soo ko gisee te amoo ñeenti seede soo ko waxee nañ la dóor te nee nga jullit nga bu fekkee ne nag nekkoo jullit nag yaa xam la nga bëgg a def nga wax lu la neex waaye boo ne jullit laa dafa am loo diine tënk li la diine tënk nag loolu nga war a def yow bul xool li nga bëgg xoolal li yàlla bëgg ci yow mooy priorité ndax lu tax li yàlla bëgg ci yow si lay fayee yow li nga bëgg sa bopp yàlla la ci duma bon bul def li nga bëgg di bàyyi li yàlla li yàlla bëgg bon fexeel ba def bëgg-bëgg yàlla bàyyi sa bëgg-bëgg bu dëppoowul ak bëg bëggu yàlla moo tax mu ne bon nañ ci bàyyi xel bu baax ci lu mel noonu nit ñi di ci commentaire ndax lu tax ju bàkkaar rek la lay jural li lay jural bàkkaar nag jural bi war waaw ndegam dañ ne yow boo ko boo ci yemoon ngeen nekk ñetti nit soo leen génnee bu leen wax ku nekk na la pat ndax soo leen waxee dañ leen dóor ku nekk quatre-vingts yar te kat gis nga yàlla moom moo protégé njaaloo ndax nee na ñeenti nit bu ko ñeent ñëpp gisoon sax ñu ñëw am ñeent ñu ci yem kenn ku nekk jugee fenn ñëw yem ci duñ yem noon rek ñu na gis nañ ko de ñu nangu déedéet attekat bi day waa par kenn Thiam noo leen gisee woon noo leen fekkee woon Thiam wax position bi mu leen fekkee woon mu woo Malick Malick doo leen fekkee woon woo tonton moor buñ ñëwee tonton moor ñëwee wax lu bokkul ak ñi ñi waxoon rek dañ leen dóor yéen ñëpp dina ko naw xoolal ma loolu mooy loolu bu ko kenn moo ñu moo ko moo ñu ko bu fekkee nañ ñun bëgg nañ ko wax nag dañuy daan dugg ci leneen moo tax yonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi nettali ne am na benn jigéen bu mas a ñëw ci moom jigéen ji dafa ëmb mu ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man kat dama njaaloo bu ëmb dama bëgg ngeen ngeen jàmm sallallahu alayhi wa ah ne digal ko ne ko atte diine bi war a dal sa kaw dañ mooy dañ lay jam ba nga dee waaye ah mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko demal ba am doom mu dem ba am doom dellu siwaat sallallahu alayhi wa sallam ne ko am naa doom mu ne ko demal nàmpal xale bi ba xale bi fer mu ne nàmpal xale bi ba xale bi fer mu dellu ci waat sallallahu alayhi wasallam ne ko sama doom fer na yent bi sallallahu alayhi wasallam doo ko digal ñu jam ko yent bi ne kii tuubam gi rek mën naa yóbbu ñu bari àjjana ndax lu tax parce que dafa dëggu ci moom loo tax lu ñu bëgg mooy yow mi koy def buñ la dumaa nga tuub xalaat ne lii moom duma ko defati mukk mukk mukk waaw moo tax mu ne bon nga gis ne loolu la lislaam di la mooy tandikuloo yàlla daf cee def dafa na dafa na njaaloo fa innahu masiyatun azima yonte bi saasam daal wax nañu ne njaaloo mooy yàlla gu màgg a màgg la yàlla wax ci alxuraan ne laa taqrabu zina innahu kaana fahishatan bu kenn jege njaaloo wax bu ko def de bu ko jege xam nga ki la tere bul jege bu jege amee rek ay am waaw ndax saa yoo góor a jigéen wéetee rek saytaan ne na ñoo ñettal leen ñettal googu mu saytaan di leen ñettal mooy waral ñu def loo xamante ne nii kenn ku nekk suñ paree boo moytul rëccu mën nga nga jóge rëccu sax monsieur lii nag moom jaru ko woon te fekk na booba seytaane ñëw ba bokk bokk leen waaye fekkee ne yaa bokk seytaane bopp dem wari ko nag kooku day daal jur la neen waaw na koo xam ne moo bokk seytaane boppam dem wari ko waaw ndaw sa taxaw ca fële di jaay boppam bu ko fa Pam Ndiaye fekkee njëw gaare oto mu dugg ci biir yóbbu ko fu bëgg a dem kon ñoom ñoo daw wuti seytaane ñoom seytaane wutiwu leen waaye ñoom ñoo daw wuti seytaane bon moo tax mu ne na ngeen ko yàlla na ngeen ko moytandiku bu zina fa inna zina masiyatun wa maxtun nee na kat njaaloo ak mooy yàlla la waaye defaral ak jéppi ak njéppite mooy lan mooy kii def njaaloo sunu borom daf koy jëppi waaw te yàlla ku mu jéppi du baax mu ne ah mu ne wasa asabila ñaaw na njoo yoonu yoonu yoonu njaaloo dafa ñaaw waaw maanaam soobu ci di ko def ah kooku njool wu njaaw la rawatina nag fukki jël am na koo xam ne day jël oto waaw dem sali pour def loolu xoolal ma loolu am na koo xam ne waxuma la day jël oto pour sali waaye mën naa dem sax ndar am na koo xam ne avion sax lay jël pour joxante rendez-vous nit ci àll ba rek pour def ko te yàlla nee na yoon woo dafa ñaaw bul jege yow far ngay tukki di ko def waaye bu ko yàlla terewul woon nan nit ñi def ma laaj bu yàlla terewul woon njaaloo nan nit def bon nit ñi dama ne xar yëg bëy yee leen tane yàlla xam na ko waaw bu yàlla terewul woon njaaloo nit ñi xar yëg bëy yi ñoo leen di tane waaw ndax léegi sax yombatul nga gis ci mbedd mi sax ay ay bëy yi sëy wala xar yi sëy yombatul waaw barki dem ci fajar dama romb ay xaj yi ma man tey di da yombatul sax la ma ko gën naa ko gis xaw ma kañ waaw ah bon yàlla nee na wala taqrabul fawaxisa bu kenn jege ñaawteef mi njaaloo ma zahara min ha njaaloo bi nga xam ne soo ko defee bu feeñ diw suma ma àndeek moom mu ëmb bul def ne bu ko jege de wa ma batana bi nëbbu nga xam ne it buy diw su ma àndeek du ëmb boobu li ne la bul jege waaw diw su ma moom day ëmb ban du ma ànd ak moom naa dem seeti koo xam ne su ma ànd moom du ëmb yàlla yàlla nee na ñaari yëpp baaxul kii jël matuwaay it nag su ma defee lii du ma ëmb daal moom nee na bul jege yàlla daal màgg na ci moom njaaloo ba nga xam ne njaaloo bu nëbb la wala bu feeñ la yàlla sunu borom nee bu ko jege moo tax yàlla bëgg ñu ñun góor ñi ak jigéen mu wax ci alxuraan yonte bi ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko xul lil muminina yaqdu min absaarihim wa yaxfazu furujahum dalika aska lahum inna allaha xabirun bi ma yasnaun mu ne waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxal julit ñu góor ñi mu ne ah mu ne wax leen ñuy wàcc seen i bët yaqdu min absaarihim waxal góor ñi nañuy wàcc seen i bët njaalo bu bëri xool bu bëri ko war waaw ndax léeg nga gis nit koo xam ne day xool nit ki ba sañoon tëdd moom ko ay tëdd nga ak moom ndax nit di ñëw nga taxaw di ko xool ba mu ñëw nga di ko xool ba mu romb nga di ko gunge waaw bu dee ku sañ wax nag ku mel ne la grand da lay te kàddu su am rek fa kalaamu wax am ah fa mawidun rendez am wa liqaaun daje am te bu dajee amee nag lu nekk mën nafa am waaw ndax sànnante kàddu boobu su amee rek laajante tur mën na fa am jëlante numéro téléphone mën na fa am bu boobaa gisee mën na rendez-vous lay am bu rendez-vous amee gisee am bu gisee amee nag si la njaaloo di door di door bon nee na waxal góor ñi mu ne ah, waxal góor ñi daal nañuy wàcce seen i bët mu ne yemul ci wàcc seen bët wa yaxfasu nañ takk seen tubay gars yi na seen seen leen tubay yi mu ne ah mu ne zalika loolu kat moo sell pour góor ñi wàcce sa bët takk sa tubay ndax inna laa xabirun yàlla dañ ne kumpa de bi maa yes na ci lépp loon def rek yàlla mi ngi jàkkaarloog moom ñu la ah foofu rek la bu ne déedéet ba mu waxee lii jigéen ñi dañoo kontaanoon ne waaye ndokk waaye ñi foo romb ñu lay xool xool la ñuy def ndekete boobu jigéen ñi ñoom li ñuy sol yëpp góor ñee tax ñu solo waaw bu leen wóoroon ne bu ñu génnee duñu gis seen benn góor bu leen romb duñ sol dara bu leen neexee mën nañoo jaar fii di dem ndekete ñoom ñu sol góor ñaa tax yàlla daal di ñëw ci ni ko nekk déedéet xaaral yéen jigéen ñoo seen wàll waaye it wa qul lil mu'minaati yaqdudna min absaarihinna wa yaxfasna furujahunna mu ne waxalit ba tey jigéen ñi yow yonent bi saa saa jigéen ña leen mu naa mu ñoom tamit dañuy wàcce seen i bët ndeke ñoom gars jigéen ñi dañuy xool de waaw jigéen ñi ni góor ñi xoolee rek te ne yàlla yàlla leen feeñal nee na dañuy xool ne leen ñi xool nee na ñoom ñi wàcce seen bët de mu naa mu ne yemul ci loolu de wa yaxfasna furujahunna nañ takk seen sër na kumba yi dëgër waaw nañ takk seen kumba de nag soo seen yi dëgër na mu waxee góor ñu takk la tuba yi nee noonu lañ digalee jigéen ñett am na jigéen ñoo xam ne seen sër daa oyof waaw ndax ko am na ñoo xam ne ñaari baat ñett ñu laaj na ndax ma tëdd loolu baaxul ci jigéen yàlla nañ ci yàlla musal moo tax mu ne suñu benn magu daara yàlla ko yàlla yokk wér ku daan wax Moussa Njëgeen dëkk ca Thiès waaw moo daan wax loolu bu ñëwee ci daara ji su ñëwee léeg gis kenn di ko tooñ naan diw na sër bi oyofee sër bu oyof kenn xamul yàlla nañ ci yàlla musal baaxul waaw mu ne ndax am na ñoo xam ne boo leen rek ñu laaj la ndax ma tëdd yàlla na ko yàlla yokk wér su ko waxaan dañ daan réyee ndax boobu ñun ñu ngi nekk xam nga xale lu góor rek nekk ci daara ji di jàng yàlla na yàlla dooli sutura moo tax mu ne bon yàlla nee na waxal góor ñi nañuy takk seen tubay waaye waxal jigéen ñeet nañuy takk seen sër nga gis am na benn saxaaba bu ñu daan wax jaafar ibnu abi talib jaafar ñu ne rakku Aline la woon ñi ne magam mu ne nee na moom de kaana laa yas yazni fil jaahiliya avant mi dugg ci diine avant l'islam bi am nee na daawul njaaloo musul njaaloo ñu ne ah te it nee na bi ma duggee ci lislaam it xalaatuma ko nag far ndax moom neen daaw koon def waaye far ba mu duggee ci lislaam def ko moom daal bon yéem na ko yéem na ko naka la nit di mën a sàggee orm dindee ormaam boobu di dem def njaaloo xool ma loolu mooy li ñuy wax ñun suñ ceddo yi am na xam ne ay ceddo lañu woon waaye de ah, am na lu bëri loo xam ne lislaam tere ko xalaatuñ ko def waaw ay nit ñu dëggu lañu woon waaw am ci saxaaba yi ñu wax ne nañ moytandiku njaaloo ndax njaaloo dafa am juróom benn yëf juróom-benn jikko yu muy def ci nit ci àdduna fii ñett ci àdduna la koy koy def fii nee na ñett yi alaaxira la ñu yi nga xam ne njaaloo da koy def nit ki ci àdduna ñu ne bu njëkk ba mu laan mu ne ah fa nuqsaani risq maanaam dafay wàññi wërsëg njaaloo day wàññi wërsëg ndax bu dee Pam Ndiaye dana maye maye ba du dese dara ba day wàññi wërsëg ndax am nga so euh, benn coro boo xam ne wala benn gel boo xam ne léegi fu weer dee nga ba ko cinquante mille wala cent mille franc sa wërsëg wàññikul te takkoo bon yaa ngi yaa ngi yaa ngi yaa ngi dépensé lu jeex am na xam ne fi ñu toll fay connex jënd connexion di jënd crédit ah fu ñu waxee ñu ñu wari ñu ba xam wari sax la ñoo xam ne yónnee Wave wala yónnee Orange Money te fekk ci ngor rek nga nekk ban yaa ngi wàññi sa wërsëg nga gis koo xam ne da ci yore ñaar ba ñett bon nee na Malick a ngi ree bon nee na njaaloo ah, day wàññi wërsëg mu ne tasahabul baraka fi risq njaaloo yi day dindi barke ci wërsëg maanaam li ngay am du barkeel boo amoon cent mille it boo doon fayeeku léegi un million it mën nga ko tasaar pasaare ba mu jeex ndax gis nga fi koo xam ne dafaa dem luyee appartement ngir njaaloo rek di ko fay am na ko am ne fu mu toll ma nga ci auberge ba yen ñi dëkk zone A xam ngeen ci dara waaw oto yi dañuy ñëw di gaar du ko génn di fay dem ko ñëw bon barke ba dañ na mu ne ah lu ñu am lu mu bëri bëri du barkeel ndax lan lu araam la ñuy def ci ci la dox di tukki ci lu araam mu ne ah yamul ci loolu it mu ne baxidan fii qulubi naas sa mujj da ngay dem ba mujj gi nit ñi duñ la bëgg duñ la sopp koo gis day mel ne dalaa danka dalaa jéppi bu ko defee yow da bopp da ba da ngay sentir loolu da ngay sentir ne nit ñi daal nawloo wuñ la ndax lu tax yàlla mooy rocc ci xolu nit ñi cofeel ci yow ndax li ngay njaaloo waaw xool leen ko rek ñi ñiy fooye seen bopp ba commencé jëm mag waaw léeg-léeg ba la xoolee sax da leen xaw a seexlu waaw doo bëgg sax ñu jege sa sa ñam wala dara ndax lu tax parce que lañ doon defa tax yàlla ñu ci yàlla waaw mu ne bu dee ñett ya nga xam ne àllaaxira la nag mu ne bu njëkk bi dangay ngay am meru sunu borom njaalookat sunu borom da koy mere mu ne wa shiddatul xisaabi te it nee na mbugal mu am métti lay am moo bii génn àdduna wala biir bàmmeel ñu ne it wa duxuulu fi naar te ëllëg day dugg safara yàlla nañ ci yàlla musal mooy lan safara wan samaha allahu taala an naarul kubra jàng nga ci sabisma naaral kubra mooy safara wu mag woowu dana fa dugg yàlla nañ ci yàlla musal ndoxol te lu ko waral nee na njaaloo daan def ci àdduna moo tax mu ne inna naarakum haasi juz'un min sab'ina juz'an min naarin jahannam maanaam sunu safara wi ñu taal ñu yonent bi sallallahu na dafa mel ne benn xaaj la ci juróom ñaar fukki xaaj ci safara xam nga ndax dégg ngeen li wax la déet maanaam juróom fukki degré suñ ko wàññee ci safara wala benn bi moo nekk fii moom si lañuy jëfandikoo ñun te léeg-léeg ku mu dugg sa kër rek say nga ñàkk say bagages hmm? nee na benn benn bi rek la ñuy jëfandikoo moo tax yonent bi sallallahu alayhi jibril ñëw na ci moom di ko melal mu laaj ko moom mu laaj yonent bi sallallahu jibril ne ko melal ma safara nu safara mel jibril di ko melal nu safara mel mu ne ko ee eh, yaa muhammad sawdaun muslimatun law anna misla xarqin ibratin baraza min an la axraqa ma ala ard mu ne ko ey eh, yow Muhammad mu ne ko ñuul dafa ne ko safara mu ne ko ñuul xam ngeen ñuul dafa ñuul mu ne ah mu ne lëndëm xanaa xanaa mooy kukk ah mu ne suñ ci wàcce woon lu toll bën bën pusa ci kaw suuf mu ne bon kaw suuf léppay lakk dara du fi desete liy dox léppay tàkk xoolal ma loolu nee na bën bën pusa ca safara suñ ko wàcce woon ci kaw jaww ji ci àdduna fii ñuy dund nee na àdduna yëpp ay mu ne sax wala anna xatratan min zaqumin turixat ila al ard la afsadat ala ahli al ardi wala maisahum mu ne xanaa xamoo ne garab googu ñu tuddee zajaratu saxuum ñu tuddee garabu xom-xom ñu ne ay meññent ya fay nekk day mel ne ay boppi waa safara di ko lekk mu ne xanaa xamoo ne sa garab googu rek bu amoon benn toq-toq bu toqee ci garab ga rek wàcc ci àdduna fii rek mu ne nit ñi dootuñu amatu lu ñu lekk ndax li fu lu ñu war a lekk dafay lakk moom jibril moo koy nettal sallallahu alayhi mu ne ko xanaa xamoon ne yow muhammad wala anna malakan min tisata achara alladina zakarahum llahu taala fi kitaabihi alayha tisata achara yàlla moo ci alquran ne safara 19 malaaka ñoo fa nekk ñooy nekk bëgg ñooy bëkk néeg yi mu ne nag malaaka yooyu yàlla tudd ci alxuraan ne 19 lañ yàlla ne jibril nee bu benn wàccoon bu benn rek wàccoon ci kaw suuf mu ne ah mu ne nit ñëpp danañu génn ci kaw suuf nekk ay mis wi ngir tàngaayu malaaka boobu indaale indaale ko ci kaw suuf nit ñi dañuy nekk ay mis wi mu ne ko xanaa xamoo ne ceen ya ca safara ya ñuy wax ne moom la ñuy gaa yi jéng ya yàlla di ko tudd ci alxuraan mu ne xanaa xamoo ne buñ ci wàcce woon benn ci kaw suuf rek suuf day màbb jéng ya waaw ci suuf la jëm du mën a taxaw ci suuf di ko téye ndax tàngaay bàktaar ba yonent bi salaa salaam ne jibril xas bi doy na yaa jibril doy na fa baka rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi jooy jooy ne ko jibril doy na wa baka jibrilu jibril ci boppam jooy ba mu gisee yonent bi di jooy bu jooy fa xaala rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne wax ne ne ko yaa jibril anta tabki wa anta min allahi bil makaani allazi anta minhu yow yaa ngi jooy yow jibril te yow nga am place ci yàlla yàlla am daraja bu mu la jox ba ne inda zil arshi makkin ah yàlla ku utal place jibril la ba tudd ko ci alxuraan wane ne jibril dafa am ñu fa yilif ñu ko topp mu ne ko yow xoola maqam bi am ca yàlla ngay jooy jibril ne ko yaa muhammad wa ma yuamminu nii ala an akuna inda allahi ala gayri ma ana alayhi aw ubtiliya bi ma ubtiliya bihi haarut wa maarut wa iblisul mal'un ne ko yaa rasulallah xanaa lu may wóoluloo ndax xëy na man ma nekk ëllëg benn jaam bu yàlla nattu waaw ndax du ma yàlla du ma nattu ëllëg ba ma mel ne haaruta mi fi jaaroon malaaka la ak maaroota malaaka la te yàlla leen nattu bañ bañ bañu mos safara wala boog mu nattu ma comme ni nattoo iblis iblis kenn ndax kon jaamu yàlla xoolal ma loolu jibril miy jooy ndax di yàlla di ko nattu wóoru ko allahu akbar mu ne fa haza jibril mu ne kii mooy jibril maa karamatihi ala rabbihi xoolal ak teraanga yi ko suñu borom defal yëpp kaana yabki fa kayfa laa yabki man huwa aasin fala taxayara bi xaalika jibril moomu di jooy bon ki nga xam ne day mooy nu muy def lu ko teree lu ko teree jooy loolu moyul mais xalaat métit yi rek ma ngay jooy waaye bon kii mooy nag lu ko jooy ngir lan ngir mën a wëlbatiku ndax kat fa inna dunya zaila adduna day dem day jeex dafa am fuñ jëm wal azabu tawil te mbugal ma dafa yàgg du jeex mais alaxira bon wa ziri zina mooy tandikul moo njaaloo bu ko def de fa innahu yurisul xadaba dafay waral meru sunu borom waaye na ku yàlla mere foo jëm wa saxata day waral yàlla jéppi la wala azab al alim day waral mbugal mu méttee métti moom Diallo ah mu ne azina ma huwa musirru alayhi wa huwa rajulu lazi yutalliqu imraatahu wa huwa muqimu maaha bil xaraami mu ne njaaloo am na koo xam ne daf cee nuur mooy dafa nuur ci njaaloo rek mooy lan dafa fasa jabaram ba pare tout le temps ma ngay àndaat ci njaaloo dëkk waaw fase nga ko ba pare xam nga diine lislaam tàqali na leen waaye nangu leen tàqali ko waxuma nag ka takku ka takkul woon ka déggagul woon moom alxayr dama ca jël dama ko jëlal waaw am na ay jamono ñu dégg fii Tëngéej ci auberge benn commerçant bu fa dee yóbbu fa benn jigéen jabar jàmbur rek moom commercant ba far mu des fa xool lu ko gën a ñaaw waaw mu ne ban kooku dafa ki nga xamante dafay sax ci lu araam mooy dafa fas a jabaram ba pare di ko ne di ànd ak moom mu ne nañ bàyyi xel nakat njaaloo day waral gàcc ndax fii ci àdduna rek suñ la ko jiiñee rek wala ñu nga gis ku nit ku la ko xamal rek gàcce la da ngay rus day waral rus waaye nag ah ba ca gën a mett mooy rus alaaxira yal nañ ci yàlla musal waaw ki koy def dafa war xalaat dafa war a bàyyi ki ko defoo gi nañ ñaan yàlla bu ko def parce que kenn rëccul ndax jibril la nga ne di jooy ndax xalaat na rëccagul bon kii dundit rëccagul de waaw mu ne nañ bàyyi xel ne alaaxira yàlla nee na yow ma tubla sarair bis la boo xam ne bu ñëwee secret yi ñu doon nëbb yëpp koy weer hmm? bu boobaa kat am na ñoo xam ne suñu weeree seen secret dañuy am kersa sama classe gi suñ génnee seen secret dañuy rus yàlla nañ ci yàlla yàlla na yàlla boole si ñami la muy ñami muur malaanum yërmande nag buñ nuur ci njaaloo buñ ñuur ci bàkkaar lu ñu war a def <coughs> mu ne wa tub ilallahi taala nañ gaawantu tuub dellu ci yàlla ndax yàlla kat boo wàññeekoo rek yàlla boo ne koo pardon rek mu ne la baal naa la nangu nangul ku mën a yërëm jaam la fa inna allaha taala yaqbalu tawba sunu borom dafay nangu tuub an ibaadi ci jaamam waaw bon nag fii ak yaa ngi ci bénéfice ci tuub boobu réccu sunu borom daf koy nangu sa sa tuub boobu pour mu jariñ la ne day ànd ak réccu li des sa dund yëpp waaye it yamul ci loolu waxat madaxallaahu almuminina bi xifsi furujihim sàmm bi ngay sàmm sa bopp ba njaaloo yàlla sax ñaan yàlla ñeen yàlla ñeen ñooñ da leen tagg ci alxuraan ñi nga xam ne du ñu njaaloo mu ne ah mu ne wallazina hum li furujihim xaafizuun yàlla nee na am na ñoo xam ne ñoom dañoo téye seen dañoo takk seen i tubay ñoo takk seen i sër ñooñ du njaaloo de illa ala azwajihim lu seen i jabar daal ñoom daal fuñ kuñ bis bëgg la takk waaw aw ma malakat aymanuhum wala bok seen i jaam te xam naa jaam yooyu bëreetul léegi fa innahum ghayru malumina sa jabar kay kenn du la ci yedd te du jot sa jabar dugg ci biir nga ubbi sa nga xëj sa bunt tëj ku la ci yedd waaye toog nañ toogoon fii ba ci yàgg rek Ibrahima am xale bu jigéen bu koy seen mu dugal ci biir tëj ñu xool xel yi ñëpp ay commencé di ñaaw waaw mais ku nekk nga ànd sa soxna dugg ci biir kenn du xalaat dara waaw ñu gis la xale bu jigéen boo takkul nga daal dugal ci biir néeg tëj yóbbu nga xel ñëpp ñu ñaalu mu ne ban fa ma nit taxaa war a zalika képp ku sàkku leneen lu bokkul ak sa soxna ah wala jaam bi nga am fa ulaika humul aaduna ñooñ dañu jalgate ay mooykat lañ yàlla nañ ci yàlla musal waaw yàlla na yàlla defal ñu ak dégg ak topp yàlla na yàlla xiir ñu ci boppam yàlla na yàlla nangu sunu koor ak sunu xeetu jaamu yàlla yëpp yu dul koor bi jaahi muhammad sallallahu alayhi wa